laisse dire qu'on que 120 euh, parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses citoyens, concitoyens. je donc ñoo ko ñoo ko déggandoo mu nekkoon le président de la République Bassirou Diomaye fay ni ki démb foofu ca Mbour le président a parlé avec un ton certains disent un peu menaçant moi je dis ferme on ne peut pas laisser passer ça naka nga jàngatee lu nu mel la ville de Thiès 120 parcelles de 200 mètres carrés ce qui fait environ treize hectares su ma jumul la wax au moment où il y a des yoo xam ne ay neuf hectares trente sept hectares yoo xam ne ñoom la ñu leen jox ci suuf la. je pense il faut comprendre président euh, en fait Diomaye. Mhm. il a parlé entre les lignes dafa junj. tout à fait parce que li mu wax nag affaire dafa grave te selon ma jox la benn révélation selon l'AS mhm. est-ce que xam nga kan lay waxal Idrissa Seck lay waxal.

moo ngi def quarante quarante parcelles loolu la wax Idrissa Seck am treize hectares treize hectares soo ko jëlee treize fois quarante muy cinq cent vingt à cinq cent vingt maanaam waa parcelle waa waa waa Thiès soo leen boolee ñoom ñëpp nombre hectare bi ñu am muy cent vingt sa Seck multiplier na ko presque plus de fois bi waa Thiès yëpp Idrissa Seck am na lu ëpp loolu est-ce que comprendre li ma la wax pour comprendre la gravité ñu tudd ci Idrissa Seck tudd ci euh, tudd ci Farba Ngom Farba Ngom bokk na ci nit am ni paaco xam nga il a utilisé un mot boo xamante ni ñu dañ ko yàgg wax paaco non loolu la wax mm-hmm. mais dañoo paaco te en plus ce que Diomaye a dit c'est très maanaam ay ngay dégg muy wax toujours la même personne aussi même buy liir nee na. Mhm. nee na qui revient non seulement dañoo pàccoo Ablaye Seydou Sow c'est les gens de l'ancien régime euh, à Matar Ba Ablaye Seydou Sow bokk na ci Idrissa Seck Cheikh Oumar Anne Farba Ngom non mais ñii ñëpp lan la am lu dul jege nguur ban lan lañ defal Sénégal lu dul jege nguur léegi imagine Idrissa loolu nag il a pas et le journal ne l'a pas mentionné nee am na ku ci am deux cent hectares. Hmm. benn nit bu am deux cent hectares. c'est grave non mais loolu dafa grave. alors que yow non mais attention xam nga lii lan la lii c'est des crimes économiques xam nga lan la lii la ñuy wax c'est des prédateurs prédateurs fonciers lu leen suuf jaral. tubaab xam nga ñoom dañoo xeex benn affaire xam nga lii nag mooy système. gis nga système soo déggee ñu naan système li mooy système c'est des gens très connus des gens yoo xamante ni. Mhm. ils défendent que leurs intérêts. Mhm. nekk ci mën nañoo bañ a ànd ak nguur gi de mais ci système bi la ñu bokk saa bu paacoo amee dañuy am te le président a été très clair nee na xam nga lu def du mat du sama wax ah waxu président Diop. dem uti ay titre foncier pour nguur gi du ko mën a nangu. est yaa ngi dégg bu baax. parce que li ñu c'est un morcellement de de parce que même lui il a dit il voulait leur mettre dans devant le fait accompli. moo tax ñoom damu jël daal arrêté waale loolu. mais moo tax gis nga grand il faut que tous les Sénégalais ils doivent se lever gis nga applaudir ces décisions qui son en train d'être prises par le président de la République xam nga lu tax parce que li c'est un courage politique. Mm-hmm. du ñëpp ko ñeme te gis nga dafa bëri ay lobby. Parfois, c'est des lobbies religieux, parfois, c'est des lobbies, lobbies, étrangers, parfois, c'est des lobbies politiques. Tous ces lobbies-là, Parce que c'est ça le système. Le système, c'est des gens qui ne défendent que leurs intérêts. À chaque fois que leurs intérêts sont menacés, ils se dressent contre le pouvoir. léegi nag instant bi naka de sénégalais mën a concevoir Idrissa Seck moom rek Idrissa Seck lan la defal sénégalais yi lan la defal Thiès loo xamante ni hmm. waa Thiès dañuy am benn moom mu am ñeent waa Thiès yëpp war a séddoo benn boobu moom benn non mais attention parce que xam nga tax xam nga garaaw foofu laa jeexale mhm. xam nga ban avantage la am est que xam nga ñu ci gën a bëgg duñ ko sax tabax ay cité yi déedéet duñ ko tabaxee xam nga ñuy def 3 hectare foofu ko yóbbu banque boo ko yóbbu boo soxlaa 10 milliards mu jox la ko hmm. xaalis boobu lañuy jël jël dem banque ba jox leen 10 milliards ñu jël xaalis boobu au lieu que ñu eh, xam nga dem morcellement de terre xam nga lan la parce que morcellement tamit il faut euh, il faut wax ñu expliquer tam lu normal la nit ñi dañuy dëkk parfois fi ñu dëkk day fees dañu war a def ay morcellement foo xam ne nit ñi mën nañ fa dem dëkk parce que tout Sénégalais a mhm. droit à un toit décent boo xam ne au moins ay doomu aadama lañ fi lañ juddoo war nañ fee mën a am kër mu imaginez kër yi nga xam ne baadoo lay am ñoom ñooñu ku ci nekk am na ay fukki kër ay immeuble mais li nga xam ne askan wi moom la ñu war a xëccoo ñoom ci seen wàllu bopp doyul sa askan wi. non non mais doyul waa Thiès yi ñoom lañ dañ ko soxla waa Mbuur yi. ñoom ñu war ci dëkk Ndakaaru fees na. nit ñi war a génn ñoom ñu jël loolu accaparé plus de deux cent hectares benn nit naka la mën a soxla yow calculé deux euh, cent fois deux cent fois quarante. deux cent. deux cent fois quarante. loolu c'est huit cent mille. ah huit cent mille. huit cent mille parcelles. Mhm. benn nit boo ko jël. huit cent mille ou huit mille c'est huit mille. huit mille huit mille parcelles. huit mille parcelles huit mille parcelles. benn nit mën ko jël ne moo ko moom. mais grand lii c'est vraiment c'est le summum de la cruauté soxor xoola soxoree sa askan lii weesu ko lii xaalis boobu yow dëkkoo ci tabaxoo ci ay cité defoo ci dara xam la ngay def dem banque tay la ko banque jox la benn 10 milliards benn 20 milliards nga jël sa 20 milliards toog. après nga jël banque boobu noonu commencé di ko dagg di ko jaay ndànk-ndànk di banque ba di jël yow jël nga sax 2 milliards ba koy jox ñu koy jaay dañ koy jaay nga jënd sa benn terrain yow nga jox sa benn 3 millions ñoom ñu dem déposer banque. ka ka 400 hectares 500 hectares moom nit mënu caa <laughs> mënu caa dëkk moom alors euh, Lamine. Hmm. Euh, sànq ma ko mu ngi koy wax mu ne quand même euh, un point important muy des lobbies yoo xam ne jamono jii di nga leen sentir ñu jógee fu ne pour dire des pressions yoo xam ne dinañu ko exercer ci kaw ki nga xam ne moo di président ce qui veut dire que en retour malgré décision bi mu jël ak responsabilité il faudra quand même beaucoup. euh, beaucoup de, de, force, su ne sa pas quoi dire, l'expression m'échappe, euh, beaucoup de courage, de courage pour mu pour mu continuer ci ci lii maintenir décision am euh, fexe ba mbir mi leer li nga xam ne war naa dellu ci askan wi quand ñu delloo ko ci askan wi. waaw courage beaucoup de courage c'est vrai mais boo xoolee courage boobu le président la la la montré courage boobu parce que ñu ñu tetee euh, ce courage du doon def euh, di jël décision yu mel nii fekk ay nit tabax. ci euh, mais de façon irrégulière ci euh, corniche Dakar bi nga xam ne dafa bokk ci la le domaine public euh, maritime. ñu mm-hmm. ñu war ko réserver pour la postérité et pour aussi des fins de d'épanouissement parce que loolu aussi ville da koy soxla surtout ville bu mel Dakar ñu bëgg a tabax ba tabax ci biir géej gi. ñu am courage yu ñoom dem def arrêté travaux yi pour éventuellement bu nekk am na irrégularité ñu démolir ko delloo ko ci askan bi. Mm-hmm. doyul wone ne lii ñu doon wax ci campagne bi du yem ci wax kese mais dañ koy traduire en acte def na loolu début de courage la wala courage mënu law loolu leneen li des mooy euh, courage bi kese doyul population sénégalaise nañ saluer loolu ak si boobu ñu posé le président jiitu si ak aussi nañ ko ne accompagner leen ci côté dénonciation lépp lu ñu gis mu niroog loolu population bi na njëkk a nekk sentinelle njëkk a def dénonciation yi mais prêt aussi pour accompagner ce combat parce que il s'agit pas du président euh, la république euh, personnellement moom la ak surtout les maires au niveau des localités. ñoom seen responsable dafa engagé wu euh, euh, entièrement pour tout ce qui touche le le le le foncier au niveau. foncier au niveau local. parce que ñoom lu dul dara rek morcellement yi wax ni ñoom ci seen loxo lay jaar c' est que nag seen est normal war nañu def ay morcellement war nañu attribuer ay parcelles pour lan parce que nit dañu war a dëkk pour ñu bugg a dëkk euh, dem fay ay frais de tabax pour mun a dëkk mais quant à autorité ministre ou un député wala koo xam ne dafa jege président rek. mais alloué à une personne seule des hectares c'est des hectares aussi. au mhm. détriment des des populations aussi ça ça c'est un crime. mais ni ñu koy doyee ñoom xamee wu leen béy. xamee wu leen projet agro agro agro euh, mhm. agriculture. xamee wu leen benn investissement ci domaine suuf mais ñuy bëgg a accaparer wu suuf si mu si tool bu euh, àll bu mel noonu di dem di profiter pour am titre foncier. parce que pièce bi pour ñu am titre foncier mooy loolu pour moom mun nekk seen tur. ñu a am titre de propriété boo xam ne. mënuñ ko ci banque euh, tey la ko pour am xaalis pour mun a après ñoom dañ koy revendre à des prix très cher te loolu amul benn yoon parce que mairie sax bu lay attribuer parcelle dafa koy def attribuer pour mu mun consommer pour une durée déterminée dans la parcelle bi ñu jox nii au de deux ans soo ko exploité wul dañ koy déclassé dañ koy dañ koy euh, classi classifié ci euh, parce que terre bi domaine national la bokk mais bu ñu la boo buggee kër mënuñ la attribuer parcelle nga tabax ko dans une durée de deux ans pour lan pour aussi mu am équité de devant les jeunes sénégalais mais parce que yow ministre nga am nga moyen pour nga am wala mun nga def fraude wala mun nga def càcc wala mun nga naxanteeg benn autorité au niveau local def lobby yi ñu mun a attribuer terre nga am kayit alors que population bi nekk à côté ñi nga xam ne ñoom ñoo la fal sax mën ñoo la tax titre bi nga am mun a def abi boobu ñoo amuñ opportunité boobu loolu moo war a jeex Sénégal te ñii li ñu commencé nii wane na peut-être mën na jeex. d'accord donc population bi ne accompagne ci loolu. gën a dem aussi sur le terrain bépp benn science bu ñu war a def ñu def ko sans recul parce que président kese mënu ko def wala ñi nga xam ne ñooy autorités yi kese mënu ko ñëpp nañ taxaw ci loolu que suuf si ñëpp ñoo ci war a am accès notamment les femmes ñoo xam dañuy def ay transforme dañuy def ay ay ay projet agricole. côté maraîchage bi ñoom mais amuñ accès ci suuf si. d'accord